c'est une grande meilleure en Angleterre hier, le gardien international jeune sénégalais âgé 19 ans, Même Gabinier 2021. 21 ans, a enquêté, 4 vies, Ferdinand Mendy, oui, le international sénégalais, l'équipe du ko s'appelle Real Madrid. Liverpool, Barcelone, oui oui waaw lii moom lii moom lii moom d'accord naa journal bi li ñu bind mooy Sadio Mané semaine bi dafa nekk baisse de forme mooy nekkul ci forme par rapport ak daaw daaw moom ngi woon ci forme xam nga Sadio dof du nekk ci forme Sadio naar bi xatal bal soxor Salah day ubbi du war a paas. du paas Sadio non defal ndànk Sadio Mané ci boppam moo nekk baisse de forme moo nekk baisse de forme loolu ñun ñëpp d' accord nañu. waaw waaw mais doon nekk ci forme. te Salah mi doon continuer di mais semaine bi passé ba fii ma mujjee booy xam nga match Liverpool bi passé stade laa demoon woo naa ko. maa ngi woon ci stade bi. match bi leen bën bën rëy di gagné 1-0 maa ngi woon ci stade bi après ma woo ko ma ne ko mais Sadio temps yi lan la mu ne moom xamul lan la xama mo xamul lan mo ma la ko Sadio il faut nga takk jabar de pour Sadio il faut mu takk jabar waaw il faut mu takk jabar góor amna ma bo da ngay takk jabar pour sa xel dam il faut mu takk jabar. non instant eh, bu fekkoon sax dañ naan munu ko wala genre affaire yooyu eh, mais mun na quoi. non loolu ndax Sadio mun dañ ko wax. non mais kon na jël mun jël la jël la dama dama bëgg ballon d'or bi. mu def ko deuxième fois consécutif mu teg la ko parce que. ballon d'or eh, Sadio jëlul ballon kii bi. waaw africain moo ko jël. waaw africain moom laa la wax. mu teg la ko comme daaw. ah mu teg la ko quoi Sénégal da yaakaaruma ko. Sénégal waaye mu nekk ci benn forme. non da koy jël parce que naar bi du jël dara naar bi dafa soxor du paase. neexoowul ak benn joueur Liverpool xam nga ballon door Sénégal ñetti nit ñoo ko fi jël El moo ko jël premier man naa ko jël quatre-vingt-seize vingt boobu nag siiwul taa boobu dig si door la tuddoon lan door Dixi Door Dixi Door ci musique lay am sa waay. Ah, waaw yow Dixi Door nekkoon ci football waa Ballon d'Or jël ko modifié ko man man maa ko jël mooy ba may joué Tokyo ba may année yaa ngi dégg histoire bi may dugal 3000 bii ci benn saison. yow waaw 3000 bii 3000 bii ci benn saison. année boobu laa jël Dixi Door 2000 97 98 ma jël Dixi Door amul mu ñëwaat ñu créé waat ko Sadio tur bi tuddee ko Ballon d'Or 2001 2002 El Hadj Ousseynou Diouf ñu ñëwaat 2020. Sadio Mané ñu ngi nii si deux mille vingt et un Sadio na ko jëlaat ñu am six ah ñu am six ah ñu am six xam man démb woo na ma téléphone waxtaan naa ak moom jox naa ko ay conseil ah. ma ne ko lii lay nekk ci zone baisse de forme léeg-léeg roi du ballon ci dàq fubal ci monde bi ah. mooy Messi léeg-léeg mu toog Barça ay trois journées du gis

ñoo may regretté quoi nee naa leen nag man li ma daloon moo metti xam man damaa damm sama pied droit bi cinq fois xam nga dama damm un deux trois te nii laa doon dammee fii laa njëkk damm ci sévi benn match bu may dugal douze bi match boobu laay damm damm bu metti bi xam nga match boobu booy toj naa ko. xanaa mooy match bi ngay jël meilleur meilleur buteur saison waaw waaw waaw match boobu la match boobu xam nga. noonu lay demee mooy mu nga gis nga booy góor Sénégal bi tamit mu ngi fi temps moom kii dafa nekk. moom kii moom macha allah dañ koy ñaanal ko kii daa nekk moom macha allah quoi. xam nga kii nan lay nan lañ koy entraîné Angleterre. Hmm. dañuy ñëw ba ci kaa yi ubbi camion njéeréer booy bi yëpp lay faxe dara du romb kaa yi camion njéeréer sama kanam entraînement bi gars yi dañuy dem dañuy xoola anglais dañuy jóge fii dañuy jógee fii xola dem ba ajak jak ñëw ba Sénégal ay. ay àll Kédougou yi si ginnaaw xam nga ay fu sore dem de yëpp fa ay njéeréer yóbbu ko Angleterre dañuy ñëw ba ci kaa de ubbi ñëw ba jubale nii kaa yi mooy dañuy jël njéeréer ubbi porte camion bi booy bi njéeréer booy bi camion bi passé neuf mille njéeréer booy bi yëpp la que dara que xanaa kii moo mën a góolu moo mën a góor kay ah kii dafa mën a góolu mais Sadio day ñëwaat que forme Sadio que ñëwaat que sori kii kii mooy président fédération football Sénégal Augustin Senghor kii la moom la moom la maag moom ñooy dem élection quoi moom bee boo nag na préparé pour xaar ma te xam ne dama koy gagné parce que football balaa ngaa nekk président fédération da nga koy da ngay jaar ci football te man comme équipe yi ma jaar bëri na équipe yi ma jaar man ba ma demee ba bàyyi football mm. la ma Real Madrid soxla boobu Kiris mu ngi mu ngi dem année boobu laay bàyyi boobu Kiris mu ngi dem mu ngi dem mu ngi jugee Real pour dem pour dem fële. waaw Juventus Juventus. gars yi woo ma gars yi woo man leen man 7000 milliards mooy sama transfert sama agent bi Pape Cissé la woo contacté Pape Cissé Pape Cissé ne moom booy bi 7000 milliards lay jar ma ñëw xam nga dama bëggoon demaat defaat jugement xam man jugement naa man sama at li ma jugement yëpp li ma wàññi boo ko dajaloon instant bi maa ngi toll ci ay 51 ans. li nga wàññi. waaw li ma wàñ yëpp li ma wàññi yëpp. waaw ah, parce que saa bu may football dinaa wàññi plus de dix ans. après xanaa moom boo yaa ngi mujjee ci. waaw ci zéro quoi waaw su may football dañuy def xam nga su may football damay war sama moustache yi wartu ndel xam nga ñu def AG la jeune sénégalais AG 17 ans xam nga loolu moo bëri. waaw waaw man bañ ma jàppee Coupe d'Afrique ba. mooy Coupe d'Afrique U20 yi bi ma mujjee dem xam nga booy egg dañ lay dugal ci benn machine boo AG rek machine bi danaan teet. ñu delloo man damaa yëg rek ma dindi ñu bëm. explosé explosé. kaay noonu nañ ma tëj ci loolu. kay loolu lay demee kay. waaw. ñu ne ma yow bi la andi sax yaa ko mais xam xam nga lan mooy problème mooy yow da ngay nekk ci sujet bu baax ah di wax muy muy clair quoi muy clair quoi oui mais des fois da ngay jékki-jékki rek boole ci say affaire daal. affaire say affaire quoi say affaire. Mm. mais man moom li nga wax nii nii ci Sadio Mané. waaw ah, non ah, ah. moom dafa war a jëlaat. non day ñëw day ñëw day ñëw te am nañu yaakaar ne day ñëw quoi. day ñëw nationale bëri na ay zone ndaanaan de. bëri na ay ndaanaan ay ndaanaan ak suñu entraîneur laa déggatul léegi ci ay mbir. entraîneur bi rek moo xamul dara. booy Ismaïla Sarr. eh sama sama booy la mu ngi fi mu ngi waaw mu ngi Watford Angleterre 2-2 keroog dugal na. ah dugal na waaw dugal na booy laa lay wax. mais booy lu ko teree ñëwaat ci D1 waaw non mu xam nga nga jugee. mais ay xam nga Ghana du tax ma mel ko ah? Ghana du tax ma mel Angleterre dem France boo jugee Angleterre mhm. da dem Espagne mais nga jugee Angleterre dem France yaa ngi nii temps yi mënatoo football parce que entraîneur Pochettino bi ñëw na changé. changé tactique de jeu changé tactique de jeu bi léegi joué ba actuellement nii Castel moo ko soxla loolu pertement moo ko soxla moo ko soxla. loolu pertement la. Ah, bi muy dem nag di def. non période bi muy dem man yu taxawoon na boobu man yu amul militaire. mais période bi muy dem boobu ñëpp d' accord nañ ne Paris boobu da ko soxla woon ba pare dafa waroon dem Paris. waaw defoon na choix bu baax. waaw waaw non choix boobu baaxul. jóge Angleterre dem fee. non mais France Neymar Espagne la jógee dem dem fële dem. waaw non bokkul. boobu bëri na ay Neymar Neymar papam. waaw Neymar France 11000 la ñuy fay jour booy ay 11000 12000 booy Angleterre booy. xam nga yow c'est que yow leen mooy sa problème mooy sa xam-xam moo bari quoi yow. ok sa moo ah, baax na. mais wuy ma après boo jotee Sadio nga expliqué ma. amul problème naa wax expliqué. dégg nga waaw. merci beaucoup Boy. quel loolu mooy kii bal ak na bal bi mooy quel palaat de Bernard Mendy quel palaat. Kelparata. Kelparata, Kelparata.